am nañ majorité à l' assemblée nationale ci li ñu rawee gars yi bëri na wàllu askan wi 24 député la am yeewi askan wi am 56 députés ñu ñu am 82 députés donc ñoo leen raw am nañ un million cinq 500 mille plus de 1 million cinq mille ñu ne woteel donc euh, am nañ majorité à l' assemblée nationale avec le jeu des alliances war nañ am majorité absolue à l' assemblée nationale. donc ñun résultat yi ça nous satisfait ñu ngi sant yàlla. mais opposition bi yëpp bu ñu boolee seen doole dañuy leen di. ëpp doole loolu ay naxaate la. intercoalition amul fen amul ci code électoral amul dara stratégie la woon mais ñaari coalition moo am parce que loi bi coalition la xam donc coalition wallu moo am ak coalition Yewwi bu ñu demee assemblée nationale nag dañuy def groupe parlementaire te yaakaar naa ne ñaari groupe parlementaire dem ba ñett wala ñeent moo fay am nañ bàyyi naxaate yi. pour param fal président c'est difficile ñu boole seen mais président de la euh, président coalition Benno Bokk mooy mooy fal euh, président assemblée nationale. parce que bu ñu boolee seen doole ñoom 80 députés la ñuy am ñun ñoom 82 députés ñoo am la majorité de façon ñun amul benn tiitukaay c'est pas ñoo am majorité assemblée nationale lu ñu bëgg assemblée nationale dañ ko am incha kon euh, dégg ngeen réaction boobu donc ñu.